cant gi ndogu yu ndogu yu cant gi ndogu yu ndogu yu cant gi ndogu yu ndogu yu cant gi auzu billahi mina seytaani rajim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi rawat na waa kër sëriñ Cheikh Ndigal Sène waa kër Seydina Alioune Mourid Sadikh ba ngeen di gis ku ko gis sa xel demati ci lislaam ndax Seydina Alioune ñi Mourid Sadikh ba moom la sëriñam di def weeru koor fu mu amee ñaar fukki fan ak ñeent moom sëriñ Cheikh Ndigal Sène Cheikhul Mourabbi mu tëj daaraam ànd ak mboolemi taalibe yi gane ko ci Daaru Salaam Belki. ñu ngeen di gis euh, monsieur Ibrahima Fall député maire bu Kër Samba Kane soxnaam moo nekk noonu wax dëgg yàlla. kon loolu ngeen di gis bi ñu julee tàkkusaan bu pare ci leen dem ca teertu ba Serigne Cheikh Ndigal Sène mooy ñëw noonu mbooloo mi di ko teew mboolem dëkk bi yëpp yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kenn mënu koo tooge ñëpp ñoo génn. ànd ak sëñ Aliou ñing yi taalibe yi dëkkandoo yi ak soppe yi fu ne ci Sénégal nit bàyyi ko gannaaw bi sëñ bi ak seen nag moom sëñ Cheikh Ndigal seen ànd ak njaboot yëpp ñu gis noonu Seydina Alioune muy wax ak takk der yi pour que ñu waxtaan ak mbooloo ñu ànd ak yar ak teggin fas yéenee teeru sëñ bi ànd ak moom dalal ko ci biir booku ngeen di gis mooy sëñ Ablaye Sarr di bëkk nekk sëñ Aliou ñi murit Sadikh moo àgg ci suuf di dekk ñaanu sëñ Cheikh Ndigal seen ñaana na ko sëñ bi ngi doon di wàcc nag fas yéene dugg nag léegi ci biir daara ji ñooñu ngeen di gis euh, waa waañ wi la soxna Aminta Gadiaga nekk kenn ci soxna sëñ bi ànd ak madame Diallo ñoom ak ñoom ki nga xam ne ñoom mooy Baye Fall ñoom Njoogu Njaay loolu ngeen di gis làmp bi la sëñ bi commandé ko depuis Chine dina valeur de 3 millions ak lu topp moom la ñuy wone loolu loolu yëpp bokk ci ndog yi ndax ndogu ren yi kat dafa ala daw mi nag ndax sëñ bi dañoo xam ndogook cant la bii parents sëñ bi dafa joxe ndogoom ba pare boo ceeg làmp boo xam ne nii ñetti million ak lu topp lay jar sëñ bi commandé ko ca taalibe boobu ñu wax Fodé ca Chine mu jóge Chine ak si moom la ngeen doon gis noonu fii soxna yi ñu ngi ci waajtaayu ndogu yi waa kër sëñ Paate Coy yi eh, waa kër sëñ Babacar Mbay bu Kayel mu leen di siyaare bu baax au passage ak mbokk waa Kayel yëpp ak waa Tëngéej fàttewuñ kenn ngeen gis yëpp ay dal la kii sëriñ Cheikh Bàcc Jaay la bu Daaru Salaam xojil bu sëñ Aliou ñi foofu dalam la bàyyi ñoxor ngeen di dégg noonu ci suuf kon daanaka noonu lañ ko doxalee nga xam ne ni loolu ngeen gis ci ay baas yëpp yëpp yëpp fu ne ay seex ñoo fa dal ak i jëwrin di waajal bu baax li nga xam ne moom mooy ndogu yi bala ñoo jëm solo yàlla am kilifa di am solo su ko amee am solo solo te yàlla sa bi ne waayi teneen sa waay do xal ci gam teneen desu la gëm digam leneen sa dina gis ngeen sëñ Aliou ñi muy jéble li nga xam ne mooy ndog yi sëñ Cheikh Ndigal Sène euh, foofu ci biir néeg bi ak di ko présenté lampe bi joxe seet fexeel ba mot nag mu de mu ne ma dootu huitième bi waaw moom moom fu ma bëggee def nii rek mu def ma nii <laughs> kon daan mbir maa ngoog sëñ bi sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañ maase waa alhamdulilahi rabbil alamin ba ñetti yoon nee na wax dëgg fa yàlla moom ajaa astu taxawaayam ci daara ji lépp moom gis na ko sëriñ bi nee na mu ngi koy gërëm bu baax te di ko sant neena di ko ñaanal moom ak doomam ak njabootam yépp yal na leen suñu borom defar àdduna defar leen àllaaxira nee na foo de it foofu mu ne yal na ko fa suñu borom defal yokkute ak xéewal ak aajo yu faju nee na yàlla may ko fa ay millions yu bari. te millions yi sax ba faw um nee na te yàlla dimbali ko ba millions yooyu bu ma ko yàqal ak taalibeem nee na yàlla ko suñu borom defal moom la ñu feggool it mu di ko siyaare nee na bu baax a baax a baax sëriñ bi nee na kon kay nee na képp ko xam da nga ànd ak kuy yaatal yaatali rek nee na yaatalal rek sëñ Aliou kat sëñ Aliou kat sëriñ bi nee na ab yaatalkat la sëriñ bi nee na moom mii toogit nee na yaatalkat la nee na dafa am ku ñëwoon ci benn setu maam Cheikh Ibrahima Fall nee na daa bëggula tudd tur nee na ndax tele dafa xaw a garaaw mi defal kam kam jul a xoora to refo Baay Faal mu ne ko man defal damay julli di woor te ma doon Baay Faal to lay na ah oxa xatin na yeeyer fu ma mag kay xatlayo ko o mu ne ko ah waaw waaw ku attan kat ab naan kat ak tux kat attan nga kat kuy naa kuy julli di woor comme Cheikh Ibra xatlayo xatlay we na maga a yera tata xatla den nee na ndax kat ndem Cheikh Ibra attan na ñi nga xam ne dañuy tux di naan kon nag o roxon wa ko xoor fo o cuujuli met kiran a ah, wax dëgg fa yàlla nag kon muy yenu kuy julleeg woor dootu ko diis nag keene itam sëriñ bi nee na lool itam te looloo ko dal re i njul re i na ba ñuy naafile fii reni pambaka ki kam bi ne nee na boobu yaa ngi ci biir kër gi di tëgg da sikara yo ñuy sikar <laughs> jallay a ah, kene de te ref xooxora suñu roxon na ka may na mu daal di reetaan ne lii nag mooy bopp bi nga xam ne sëñ Ismaila da koo yen lu bari lool. waaye itam. waaye itam. wallaahi. wallaahi. ci doole sëñ Ismaila. sëriñ bi nee na mu ngi yëgal ñëpp attan na liñ ko yen nag. nee na li nit ñi li nit ñi def ci biir kër gi nee na ak li taalibe yi def attan na ko ci xolam. nee na attan na ko ci yaatalam. nee na attan na ko it ci baaxam. xat naan mi na muñees nee na attan na ko ci muñam xat na bëgg liggéey nee na attan na ko it ci bëgg liggéey kon koy baatin fa kon sëriñ bi nee na nag bu yii yëpp amee baatin bi nag nee na wóor na ko ni nee na sëriñ Ismaila attan na ko kon noonu kon sëriñ bi nee na kon nag yéen nag nee na ngóora bi nga xam ne moom la ñuy def soxna Astu Njaay ñëw di ñu feelu sëriñ bi nee na lii daal amul lu ko dàq. nee na fet ci kay. nee na bu nit feccee. nee na maanaam bay daaneel. nee na keneen ñëw nag feelu ko. nee na kay ka daaneel lool rek la bëgg. nee na ba ñu dajalee ba am juróom-ñaari million nee na ñu daanele foofu soxna asu ñëw nee na nag feeloo ñu foofa ak million eh, nee na ah sëñ Aliou nee na bu doon lool nag loolu kon kat juróom-ñaar moo fiy nekk nee na te du tee kat ñu doon ay góor nee na du tee it ñu doon ay jàmbaar waaye nag sëñ Aliou sa bëgg liggéey ak sa xër ak sa ngëm ak sa dëggu nee na loolu moo la wërsëgal soxna Asou Ndiaye sëriñ bi nee na nee na ñu ñaan rek maanaam aja asu yi bari nee na ñu bari ci ñun nee na kon nag ñu gan koo mën a liggéeyal kon sëriñ bi nee na ñun ñëpp nee na dañ tënku ci lii nee na ñun daal nee na ka nga ka nga topp nee na royal ci jikkoom rek ne sëñ bi nee na moom de wóor na ko ni sëñ Aliou ñu ngi mii képp ku aju ci moom nga roy ko nee na doo daanu mukk nee na tey doo ñàkk dara te loo bëgg di nga ko am ndax wóor na ko ni. jikko fa ne Cheikh man ndeeres fa sëñ Ismaïla ji mu yor moom sëñ Cheikh digganteem ak Cheikh Ismaïla wax dëgg fa yàlla nag moom la sëñ Aliou ñi ngi yor digganteem ak moom na jëf nee na ci jëf fa xalaat nee na ak xalaat fa lay ak ak wax fa nee na ak doxin doxalin wu rafet fu fopp daal nee na ak lépp daal ten daal sëñ bi nee na moom sëñ Aliou daal nee na nangu na ni daal sëñ Aliou ñi ngi moo ko teg bët moom sëñ bi nee na li doon nag teg nit bët. nee na du bañ ko. nee na du wujje ko. nee na du iñaane ko. nee na du it maanaam iñaane ko. nee na teg nit bët daal. nee na mooy lu baax lu muy def. nee na ngay def lu mel noonu. nee na bu bëggee lu baax. nga bëgg lu baax. mu war warmaal kilifaam. nga war maal sa kilifa. te bëgg sëriñam mu bëgg sëriñam nga bëgg ko mu yaakaar sëriñam nga yaakaar ko mu wóolu sëriñam nga wóolu ko te loolu dama bëgg nga may ma rek neen dafa bëgg nga mee ko rek ndax liggéey bii nga ñu teg ndax liggéey bii nga xam ne moom nga ko teg la ñu fas yéene la mu fas yéene balaa ñoo génn nawet balaa ñoo génn nawet bi ñu dugal caabi yi ci suñu poos ñu dugal caabi yi ci poosam nee na du la ko jox nag ndax pareegun waaye liggéey bi dina pare ba ñu dugal caabi yi ba mu jël caabi yi dugal ko ci poosam. waaye urumu jumaa ji waaye urumu jumaa ji la la bëgg nag lépp loo fa war a liggéey. laata ñu koy ubbi laata ñu ko ubbi nee na mu liggéey ko nag. te keroog te keroog. wax nga ba tudd wax nga ba jàppukaay yi nga ay ay jàppukaay yi nga xam ni. Euh, waa jumaa ji waa jumaa ji. faw ñu ko ñu ko fay jàppee. faw ñu yittewoo ko di ko fa jàppee. mënu faa ñàkk mënu faa ñàkk. te bëggu faa génn. te bëggu faa génn. te liggéeyaloo ko. bëgg na itam. bala seex yi nga sas kër yi. ba nee na seex yi nga sas kër yi. bala ñu laa jébal seen i caabi. balaa ñu laa jébal seen i caabi. mu liggéeyal la jàppukaay bi. mu liggéeyal jàppukaay bi. ak bibliothèque. ak bibliothèque. ca ca jumaa ca jumaa nee na muy daaray kaamil nag. nee na lii daal la la ñaan. te bëgg nga may ko ko. nee na ci kanamu ñëpp nag. waaw sëñ bi nee na sëñ Aliou loolu itam. nee na loolu nangul nañ la ko waaye jàppukaay yi. nee na résidence bi nga xam ne moom la président di tabax. dafa ànd ak ay ay ay wanagu public yoo xam ne. nee na dafa ànd ak ay wanagu public yoo xam ne. dafa am ñu góor ñi fu ñuy duggee. dafa am góor ñi fu ñuy duggee. ak jigéen ñi fu ñuy duggee. ak jigéen ñi fu ñuy duggee. bañ ko waxee. bañ ko waxee. ma ne comme naroon nañ koo def ci wetu jumaa ji. mu ne comme naroon nañ koo def ci wetu jumaa ji. ngeen far koo def foofa. ngeen far koo def foofa. kon ñooñu dinañ def loolu. kon ñooñu dinañ def loolu. Euh, daara kaamil bi nee na daaray kaamil bi it. dama ko waxoon sëñ bas. nee na da nee na da ko waxoon sëriñ Basiiru Mbay alxuraan. te xaw ma ndax su ma ko nangoo ci moom dina ko neex. wala te xamul bu ko nangoo ci moom dina ko neex wala déet. waaye. waaye. ba nga pare rek. nee na ba nga pare rek. nee na bu loolu pare. bu soobee yàlla. dina la jox loo foofu dara nee na dina la jox loo xamante ne nii nag da ci bijaawee. incha allah incha allahu waaw. <laughs> la la mbooloo mi gannaaw bañ dogee ba pare euh, julli jee naafi la ci la mbooloo mi waaj nag ñu fas yéene jublu ca cérémonie officielle ba sëñ Cheikh Ndigal seen mu ngi noonu ànd ak Seydina Ali Ñing mu di Sadiq ba euh, kooku ngeen gis ñoom sëñ Ablaay bëkk neeg euh, ñoom sëñ Mbay seen fa maag taalib yi ñoom ñëpp wax da yàlla di ko teeru sëñ bi waaj a dugg ci baas bi noonu Moustapha ndigal baay Moustapha ndigal baay Moustapha ndigal baay Moustapha ndigal baay Moustapha na mi ɗay na baatin baayu Moustapha Seen ka jege a caaxaan nurule i jub daal ugi jul na duniya lampali njaambur leray na duniya seen dimle ay in na zahiri fa baatin seen dimle ay in na zahiri fa baatin boo imu cay seen nu xeerem baqaatin yele bay na zahin dame day na baatin bay Mustafa seen ka a caaxaan nurul la i juub dallooge jol na duniyaa nuru la i juub daa looge jol na duniya lambale njambur kaale ray na duniya bay Mustafa sen jege a caaxaan nuru la i juub daa looge jol na duniya lambale njambur kaale ray na duniya bay Mustafa sen bo yomal qiyaame yonen ga xooy ka Babakar jege no képp koo xam ne ne aju na ci ñun muy soppe wala muy xarit wala muy taalibe maa ngi àndaat ak moom bés ni ki tey di yeesalaat sama njébbal sama diggante ak yow te lépp lu ma la mos a liggéeyal mu mel ni rek maanaam mosuma la liggéeyal dara maanaam ñàkkati cee yëg dara ak ñàkkati cee gis dara ak ñàkkati cee xool dara fos yéenee laxasuwaayaat bés ni ki tey laxasaay gu bees tàq maag gaa yi nga ma àndal fas yéene laa liggéeyal bu faw ñu ngi ko ci yokk rek mel na ni jawriñ yi ñu ci bari xam ngeen ne ah seere naa leen kenn ku ne ci yéen liy jëfam ak kenn ku ne ci yéen liy pas-pasam ak kenn ku ne ci yéen liy yéeneem ci liggéey bi damay sant rek sama bokki seex yi nga xam ne ñoo teew ci bés bi loolu nag dañ koo baaxoo wax waaye man yoonu seen seex ndigal awma ci ku may moroomaan teen dama jàpp ne képp ku sukk jébbalu ci seen seex ndigal rek Seydina Aliou sa taalibi la man loolu laa jàpp ñoom ñépp samay sëriñ lañu li dale ci sëñ aliw ba kay sëñ bii mujj a seexal ñépp sëriñ laa leen def kon sëñ bi ñu ngi ziyaar suñu mbokk yooyu ñu baax ñooñu ñu tedd ñooñu nga xam ne kenn ku ne ci ñoom boo xaree dënam doo ca fekk dara lu jul sëñ Cheikh Ndigal Sène di ziare suñu Moustapha al mii toog nga xam ne nii mu toogee ba fajar du soppeeku ndax fa mu jaar ak nañ ko def moo tax yar moom moo ma ci doy ci moom laa royu yar ak teey ak dal ak teggin loolu moom suñu Moustapha moo di sama royukaay di suñu jàmbaar suñu sëriñ suñu tiitar di suñ baara nga xam ne ku bëgg effort la ah di ko ñaanal rek ci ñaanuk taalibe ak sëriñam lépp lu mu la bëgg liggéeyal ci ndakaaru ak jasporaa bi ak li ko wér seen nga jàppal ko ay tànkam ndax xol bi rëy na yéene ji rey na bu dara bañ ci fanama ma di la seere ne sous-préfet jàpp na ci bés bi bu baax a baax a baax ba CLD bi sax dafa mujj woyofal ko ba indi ko ci daara ci fii lañ ko deferee kenn demul ndulo waaw mook chef de service yëpp la déplacé indi leen fii ànd ak monsieur le suñu maire bu baax bi fii lañu ñu yendu keroog. di wonewaat rek suñu mbegte di teewaat fii ci bés bi di ci sant yàlla bu baax ndax kat bu yàlla dogalee ñu fekke woon ko daaw te fekke ko ren. war nañ koo sant bu baax a baax a baax di si sanc aussi sëñ bi ndax lii lépp yawa sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax di rafet di rafetluwaat bés bii gannaaw biñ ci santee sëñ Aliou ñi ni mu ko waxee dëgg la sama goro la sama lépp la wax dëgg yàlla maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di gën a kontaan rek ci lii te comme ni ma la ko waxee woon bés bi sama bés la ah xëj na doole bi moo bariwut waaye eh, du fekkoon ne doole dafa toloo ki yéene kon lépp lu fi def man maa ko fi def waaye maa ngi lay sant bu baax a baax wax dëgg yàlla kontaan naa bu baax en tout cas wax ji du bari comme dafay guddi eh, ñu ngi gërëm ñëpp daal di sant ñëpp di la wax sëñ bi daal nga yokk a ñaan ndax ni ma koy waxee fu ne yaa ngi ñuy dimbali ci askan bi ñun ñi nekk ay autorité yaa ngi ñuy dimbale ci askan yi góoru yàlla yi nekk fii di sikkar bu lii amutoon ñu ngi ci leneen ndok bi lii amee nga xam ne taluñu dara lu du turu yàlla di sikkar di jàng ay xasaayit taluñu affaire u banditisme ak yeneen ak yeneen loolu lépp yow la kon ñu ngi lay gën a gën a sant bu baax a baax a baax en maa ngi leen di baalu ak ah di leen baal ak. alhamdulilah min bismillahi rahmaani rahim di am yaakaar bu baax a baax a baax ne di nga yokk ñaan mais di nga yokk ñaanal Sénégal ñaanal son excellence le président Macky Sall suñ borom may ko wër may ko kattan may ko ba li mu yéene réew mi mu yeggale ko te mu nekk njëriñu askan mosuma gis si taalibe seen Cheikh Ndigal seen yi dara loo xam ne rek comportement boo xam ne la bu baaxul la amul kenn ku ma sañu sama bureau ah am naa ndulo la ñetti at ñetti at maa ngi arrondissement ndulo mosuma gis ku nekk diw def na lu bon bañ indi ko arrondissement te ñu ne taalibe seen seen liggéey seen la gisaguma ko kon nag sëñ bi say cheikh yi fi nekk ak taalib bi fi nekk de ah, naw nañu seen comportement kon nag tàggat bi mucc na ayib macha allah yal na yàlla saxal loolu dëgëral leen dëgëral taxawaay bu baax a baax a baax. di siyaare xalifa yi ci senegal yëpp tarixa yëpp ñoo ngi leen di siyaar di leen baalu àq. te di leen baal ci weeru koor bu tëdd bii kon sëñ Aliou li tax ñu bañ a wax séeréer tey ñu di ñu jot li dañ koo bëgg a résumer rek ndax daanaka li ñu waroon a wax yépp wax nañ ko ca kër ga moo tax xam naa wolof yi dak du neex ndax wolofu séeréer moom du neex waaye xam naa bu neexul it li ngeen ko dégg inshallah kon sëñ Aliou ñu ngi lay siyaar bu baax di siyaare mbooloo mi ngi àndal yépp seex yi ak jawrin yi ak taalibe yi comme ni nga ko waxee góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñëpp ñoo ngi leen di bu baax a baax di leen di leen seere ci ci lu gàtt ne képp ku aju ci Sëriñ Aliou mi maa ngi lay jox ndigal lu lu wér ci man te lu déggu ci man lu ngeen ko jàppoon na ngeen ko gën a jàpp lu ko raw fu ngeen ko teg man ngeen fa teg lu ko waay jox man la ko jox nu ko waay def no man la ko def ku ànd ak moom it man nga àndal képp ku ànd ak moom dina ànd ak yow ba ci man maak yeen ba ci sëñ Ismaila sëñ Ismaila ak ñun ba ci xaadimu rasool xaadimu rasool ak ñun ba ci àjjana ci barke sëñ Ismaila di siyaare sous-préfet bu baax bi nga xam ne de li nga wax rek moom laa ciy wax sëñ Aliou man de wax dëgg yàlla jaxasoo na ak sous-préfet yu bare bare waaye ku mel nii billaahi wallaahi tàllaahi mosuma koo gis sous-préfet yu bari samay xarit lañu lu yàgg nag ba tey waaye man daal sous-préfet buy dindi àddiya jox sëriñ ah man de ci moom laa ko gis te toujours damay wax ne maanaam yàlla bu indee nit ci àdduna pour mu doxal mission ku ko gën a nangul yàlla dootul xool sa sikk ndax am na ku nekk koo xam ne kooka yàlla ci moom la lay xoole boo gisee maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi julli ak woor te teewut lu nit yi diine yëpp am wala sax mu am lu ñu amut xam nga li ko tax sëñ Touba yàlla da ko fi indi boog ñu topp ko boog ñu di ko liggéeyal boog ñu di ko jox addiya ndax mu mën a doxal mission bi ndax mission bi kat ah am na loo xam ne moom mënoo koo boole ak ak ak liggéey moom maam Cheikh ñëw nangul ko dogale sunu borom boobu nangul ko ci loo xam ne kenn mësu koo nangul doomu aadama dent sëñ Touba du doomu aadama ndax sëñ Touba moo wax ne aadama bu njëkk ba sax bokkuma kook yéen sedd yàlla nangu boobu maam Cheikh Rafael nangul sëñ Touba moo tax yàlla xoolul Cheikh Ibra de yàlla ci sëñ Touba lay xool waaw li ma leen ci jox firnde rek nit ku nekk sa doom bu defee dara mën nga koo dor waaye sa set lu mu def nga bàyyi ko waaw seet leen ko foofu rek oh. kuy door setam mos ngeen koo gis sëñ Aliou ñu ngi nii taalibeem yaa ngi nii ñii mu siixal dañuy teg maanaam dañuy teg ay ndënd di fecc di def lu leen neex ba mu des mooy yàlla te sama yoon nekku ci waaye kii ñemewu la jaayu sax jaayu <laughs> xalaatu ko sax waaye ñii xooluma ci ñoom man ci suñu Aliou laay xool waaw mbiru yàlla yépp nag nu suñu dañoo mos a toog mu ne ma sëñ Cheikh xam nga nit yi ñu bari li leen di daaneel dañuy wax ne lu yonent bi defut nit waru koo def mu ne ma yonent bi dañ ko fi yónni woon nga xam ne moom mi ref moom mi def représentant suñu boroom ab jàngalekat la waaye nitu yàlla yi ni ñu mel ak yonent bi ak yàlla dafa mel ni nit ak ay setam xam nga dafa am lu ma leen wax ca ca kër ga bugguma sax di ko wax ci mbooloo ndax dañuy wax ne sëñ Cheikh day wax ci baatin te man sañu maa wax ci baatin man ci liggéey laa sañ a wax ak sant nit yi ñuy jàmm yàlla tey liggéey te jub te bañ a dugg ci lu leen warut ci loolu laa sañ a wax man sama lépp liggéey la ak taalibe waaye dafa am yoo xam ne booy jàngale boo ci yeggsee boo ko tebee mën naa mën naa indi loo xam ne day day fàtt daal loolu li ma leen ci jox firnde rek wax naa ko ca kër ga bu leen ko gisee baatin nag loolu mbir sunu borom la ak sëñ bi nee naa leen benn bés booba ak léegi war na mot ñaar fukki at ak juróom dama toog ba benn bés bëccëg ca daara ja benn baat ma wax ci asamaan bi ni sañ Cheikh ma ne teg mu ne ñëpp dañ laa war a topp nga topp sëñ la man du ma waxantu mukk ma di leen ko wax di leen ko wax ba barke dem bi ñu yóbboo ndogg sëñ bi di waxtaan ba mu yàgg mu ne bu keroogee boo parisalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu firi ko yonent bi taxaw xaadimu rasul taxaw maam Cheikh Ibrahima Fall ne ma sa sëriñ sa xarit moom suñu la wax loolu mu ne maam Cheikh Ibrahima Fall suñu Cheikh sa sëriñ sa xarit oh. ñëpp fekk nañ ko mu ne bu keroogee bu ma taxaweek ñoom nga taxaw ci sama gannaaw mbooloo mi yëpp taxaw sa gannaaw te lii ba ma leen koy wax ëpp na ñaar fukki at kon xam nga ne man damay jullit di woor di nat asaka lépp lu jullit di def dama koy def waaye man nag li ñu ma sant dëgg-dëgg mooy toppal sëñ la ndax dañ ma wax ne ñëpp dañ laa war a topp nga topp sëñ Ismaïla ma xam ne loolu du saytaan yi bu saytaan daf may wax ne sëñ Cheikh ñëpp dañ laa war a topp ma xam ne saytaan yi may nax waaye daf maa wax ñëpp dañ laa war a topp nga moo tax man sama sama jaamu yàlla dëgg-dëgg-dëgg mooy topp sëñ la waaye teewut nag billaahi wallaahi maa weet ak sëñ bi boobu ak léegi ëpp na ñaar fukki at ak juróom maa weet ak moom ñun ñaar rek ak yàlla ma ne ko sëñ bi bul ma may julli bul ma may koor defuma ko nag ngir di ko yaakaar waaye dama koy def ngir rafetal lislaam gi rek waaw waaye bul ma may julli bul ma may koor te lépp lu lu jullit yi di def dama koy def lépp lu Baay Faal yi di def dama koy def xaqiiqa ak sariya moom lañ ma yéen moo tax damay wax toujours ne sama diine du marsandiiru caaro yi de jënde fii ne bul jaay fale déedéet sama diine mën naa dem Makka mën naa dem Touba mën naa dem Kër Cheikh mën naa dem Tiwaawan mën naa dem Ñaseen mën naa dem Njaasaan mën naa dem fu nekk sama diine amul fenn fu muy bañ foo ko yóbbu ñu nangu ko waaw foo ko yóbbu ñu nangu ko waaw boo ñu gisee ñuy dox nga ne ay Baay Faal nga nee di dem waxtu bi jot ñu doon ay murit joxe jot ñu doon ay Baay Faal liggéey jot ñu doon ay Baay Faal nit yi nañu nañu jub te gis nga toppatu sa bokk moo génn fii di xajale kilifa yi ba dem safara de ñoom ñu dem ajana waaw lu sa yoon nekkut dara lu sikk amu ca ñooña di di wet di def lu baax di wax lu baax yow nga doon ab taal bi sama njoroñ daay rek wujeek yu kenn xamul jàpp la foo nekk naan doy na waar de waaw doy na waar de nit yi nañu bay loolu nañu bay loolu te xam ni kenn du faatu ñu naan la loo doon ak yow sa jëf lañuy laaj de ak la nga doon def lu baax ak leneen de waaye nekk foofu daan ay murit ak ay tiijaan ak yooyu <laughs> boo jubul koo mën a àndal ñu duma la amul ixtilaaf koo mën a àndal boo jubul dañ lay fudd sa ndig ba nga xam ne yow yaa ko tey waaw kilifa yi bind nañu wax nañu waaw ku ku bëgg a bakko la nga doon daal fexeel jub rek te nga nangu ko ndax yàlla eh, moo wax ne wa atihu la wa atihu rasula ulul amri minkum topp leen yàlla ak yonent bi ak borom kaddu yi borom kaddu yi nag yàlla daa xamoon ne yonent bi mënu fee nekk ba ilaa yawmi diin mm. waaye sëriñ yi moom mooy borom kaddu yi ñuy digle lu baax tey tere lu bon mm-hmm. ta'muruna bil mahro wa tanahuna an munkar mm-hmm. waaw xayru ummati uxrijat linaas lañ wax mm-hmm. gën ci ci ci ci xeet yi ñooy ñiy digle lu baax tey tere bon du noonu maa ngi leen di digal nag ndigal lu ma ñor la nag fu ma waxtaane waxtaane naa ko yéen góor ñi yem leen ci seen jabar yi yem leen ci seen jabar yi yéen jigéen yi yem leen ci seen góor ñi seen jëkkër yi <coughs> ku amul jëkkër wuutil ku amul jabar wuutil te it am na lu fi xew it lu ñuy wax mariage précoce moo gën njaalo précoce de waaw hmm. boo waxee ñu naan mariage précoce mariage précoce waaw boo bañee sa doom dek mariage précoce sa doom di njaalo précoce loo ci mën bu sa doom di jàngate tubaab bu gisee ku mu bëgg mu bëgg ko te ñu war a ànd may ko ko te mu bàyyi ko muy jàng bu ombatee ñu xam ne jëkkëram moo ko ombal du yàq njàngam du yàq voleuram du yàq carrière am waaw huit millions la ma jox tey parce que it dama leen koy wax parce que yéen ko dajale jox ko ko ma xamal leen ne jox na ma li ngeen ko joxoon Touba fiñ may siyaare teeras na ko rent jumaay njàmbur gee jël na fa ñaari jullikaayu jigéen yi jox soxna astu benn bi benn bi ba ba kuule nañ ko ba pare daanaka finition moo ci des boole ko it lampa bi ñu war a def ci jumaa njàmbur bi bu bu mag bi jënd na ko siin lu mat ñetti million mook montar yi ñetti million yu topp ba indi nañ ma ko tey ba mu nga ca mbaar ma dama bëgg bu ma xëyee oto yi ñëw jël si ko kaar bi ñëw jël ndax reyaay ba xejul ci oto Saliou Diagne ci mbaar ci ci ci ci ci kaar la xëj ndax dafa bari lool nga xam ne làmpa bi diisaay bi rek na nekk juróomi bari ko montar yi bu ci nekk moo ëpp nit taxawaay te loolu yépp yéen a ko def ànd kook moom mënoon ngeen su ngeen defee li ndogu bi am lu te daaw set millions ngeen joxoon ren ngeen dolli ci million wax dëgg yàlla euh, xam naa def nañ ci moom mu def ci yéen waaye waaye gor la te ay gor ngeen waaw waaw gor la te ay gor ngeen kon si ñaliw li ma la mën a xamal daal mooy boo buggee di nga yokku boo buggul it di nga yokku te koo bëgg mu yokku it mu yokku loolu moom defal nañ la ko bés bi bés ni ki tey boo buggee it gudd fan boo buggul it gudd fan te koo bugg fanam gudd incha allah mu gudd fan ci barki si Ismaïla képp ku fi ku fi teew rek maa ngi ñaan yàlla faj sa ajo àdduna laaxira li nga xam ne sëñ bi da koy wax rek te ñu yéene ko ñëpp sëñ Cheikh ndigal seen ku la gis ci weeru koor aram na safara maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ci barke sëñ Ismaïla mi nga xam ne moo koy wax di ko seere seerewaat maa ngi ñaan bés bi tey ku ma gis na aram safara ci kattan ak doole siis may naa leen ko xol bu tali te insha allahu rabbi noonu lay amee jërë ngeen jëf dekk leen ñaan